nag jàmm ci euh, Global Télévision seen xibaar digg bëccëg gi li si gën a fës mu bokk ci lu jëm ci euh, lii di élection yi fii lekk kon euh, dimanche si lañu fas yéene nag dem ci gam euh, mbañ gàcc gi tax nag ba jëwriñ gu ñu dénk wàllum biir réew mi mu ngi woon fële ca Touba doon na nag amal ab ngan wala di nemmeeku waaye bërëb yoo xam ne nii fa la ñu doon wote wala fa la ñu war a moom Jean Baptiste Tine nag gis na la mu fa fekk daal dal na xelam ci élection yi ñu jëm leneen lu soxal xibaar yi moom mooy kaddu yi nga xam ne fësal na ko moom Tahirou Sarr gannaaw ba mu kon déggee kii di Ousmane Sonko yëkkati ay baat jagle jagleel ko ko moom euh, Tahirou Sarr nag euh, nee na baat yooyu yëpp lenn taxu koo jokk lu dul rek euh, jéem a kon tilimal ab deram te lu ni mel du ko seetaan fa mu taxaw fa la taxaw ba léegi di xeex loo xam ni askan wi mooy seen moomeel mu delluwaat ci doomi réew mi ni ko kon partim boobee tuddee nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi tàggat yaram la ñuy jeexale ak lii di Sénégal Burkina Faso ni ki démb la match bi doon am Sénégal nag mujjee gagné boobule match entraîneur ba di Pape Thiaw yëkkati na si kàddu dinañ si ñëw ci ni mu gën a yaatoo kon mbokk yi lee fi gën a fës léegi-léegi ñu yaatal ko dëkk bu sell ba di Touba lii di élection yi ñu koy waajal bu baax a baax tax nag ba kii di uh, jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi dama noon fa daal di uh, kon doxantu gis na nag ci bërëb yi nga xam ne yëpp se la ñuy kon uh, watee lañu fa teg dal na xel moom Jean Baptiste Tine nag ci lu ni mel gis na ne lu jëm ci dispositif yi jëm ci élection yoo xam te ni dina jaar yoon te du am benn ci lënc ci fii lekk dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru kon novembre lépp kon dina nguur gi def na ci liggéey bu mucc ayib Jean Baptiste Tine la ñuy teewlu ay kàddu ma kaadama baax bañ gàcce yi lépp lépp lépp egsi na non seulement egsi na mais daanaka nit ñaa ngi ciy liggéey pour que bés bala bés bi ñu mën koo distribuer ba nga xam ne bu dimanche du am benn tardement ci liggéey bi ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci élection yi pour ñu am ay élection yu normal comme ni ñu ko daan defee ah, mu mën a euh, déroulé wu mu ñu mën koo euh, amee ni ko ni ñu ko yaakaaree ci ñun mu nekk woote bu bu gaaw mu nekk woote bu bu yomb bu ñëpp euh, ñëw def seen devoir citoyen ci jàmm dellu seen kër ci jàmm. alu kaaraange gi ni ñu ko daan defee moom lañ koy defewaat dana am waa police dana am gendarmerie dana am sax ci yenn boor yi waa armée nationale ñu leen di jàppale.

jumtukaay yi soxla ci bureau de vote yi indi nañ ko waaye rax ci dolli département bu nekk am nañu benn lot d'équipement boo xam ne dañ ko ber pour compléter euh, lépp loo xam ne mën na am mu yàqu ci diggante bi wala mu am manquement am comme élection bi jeexagul mën a gu xam ñaata la coûté waaye seer na lool lool lool kon lii di élection yi nag euh, tey jii ci euh, minuit lii di campagne bi kon tey si minuit lay euh, jeex waaye laata loolu ñii di coalition yi nag ñu si bari fii ci Ndakaaru moom moo nekk li nga xam ne moom mooy seen point de chute tax nag ba ñi nga xam ne ñoom ñooy caravane yi jëm ci coalition yi list liste yi ñoom dañuy faral di daje ci ay bërëb waaye li gën a fës ci li nga xam ne moom mooy njeexitalu campagne bi moom mooy ay kàddu yoo xam te ne mu ngi jóge fu ne tontunte geeg xaxalante bi loolu yëpp bokk ci xumbaay li di na euh, campagne bi ñaandu ci ak Aïssatou Ba fukk ak juróom-ñeenteel bés bile campagne électorale ñeel jongante législative yi ñu dëgmal fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub novembre yemoo ko dimanche bi ñu jëm bokk na si bés yu mujj laata bile campagne di tëj ñi bëgg a yore baatu askan wi nag di def seen kantalay kàttan ngir mottali li nga xamante ne moo nekk seen campagne laata bés yi leen may muy daal di jeex ñu si ëpp si ñoom nag ci Dakar fii la fas yéene jeexal bile campagne donte am na ñenn ci ñoom ñu des ci biir gox-goxaat yu Sénégal kii di Ousmane Sonko nekk njiitu Pastef di parti bi nekk ci nguur gi moom ma nga des Dakar di wéyal ay tournée nga xamante ne saa su nekk mbooloo bu takku rek moo ko ci daadee wisi pikin jàpp parcelle Assainies jaar Grand Yoff ki nga xamante ne moo nekk njiitu Pastef daadee nay saafantoog askanub Sénégal waaye tamit waxtaan ak ñoom ci yéene bi nga xam ne am na ko ngir mën a am seen baat mom ci walam coalition bi di jam ak njëriñ bu Amadou Ba mom jëloon na yoonu Mbàkke Jurbel jàpp Bambey ngir meuna fédélé wat coloré waye tamit dëgëralaat taxawayam ci yooyee gox la tax yi le jongante di aksi fi ci Dakar mitinia ak caravane nara tejé ci banlieue bi jotali kàddu askan wi nag tade won amal ab cravate bo xamné Modou Fall moko jité won ci bobé waxtu ànd bessel Sénégal nga xamné ki

a waxtaan ak ñoom laata bile campagne di tëj gannaaw bi nga xamante ne amoon nañ ay bés yu bëri ngir amal ay tournée meeting ak caravat mu ànd ambiance bu ràññeeku lool ak itam violence boo xam ne juróon na fi coow bile campagne électorale nak dina daal di tëj tey aljuma fukki fan ak juróom ci weerub novembre Aïssatou Ba lu jëm nag koon ci euh, coow loolu nga xam ne moom la ñu nemmeeku si campagne bokk na ci diggante euh, kii di Tahirou Sarr ak kii di kon euh, Ousmane Sonko gannaaw nag mi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddoom jëm ci discours yi nga xam ne moom lay faral di amal jëm ci lépp lu nekk ci réew mi ci ay étranger ñu mën a xool na la ñu koy tegee si yoon moom nag Tahirou Sarr daal na ko tontu jëm nag ci wax jooju nga xam ne wax na ko ndax nag nee na discours bu ni mel baaxul ci mim réew moom mu gis ne daal def lu dul rek jéem koo jaxaseek ñi nga xam te ni ñoom ñooy nit ñi ndax nak moom limi muy wax euh, du leen dul soxal askan wi te ba léegi euh, fa mu taxaw jóge fa benn yoon euh, moom njiital kon boobu lépp coalition di jiital doomi réew mi la ñu teewlu ay kàddum yamu dénk am satu ganu sama der kenn du ko yàq may dund kenn du ma jiñ dara tànk maa ngi am sama bakkan mën koo weddi wala mën koo xeex donc moo waral jotaay bi moo tax ma ñëw toog ak di waxtaan ak yéen dañoo bëgg indi xeex bi ci miru pël ci miru waaso mosuma tudd waaso te Ousmane Sonko du mës a génne fu ma tuddee waaso te moom indi na fi waxu waaso moom tiit na am na tiitaange indi fi waxu waaso nationalisme képp ku koy xeex di ko basé si ay lu am France mooy maanaam sax xam-xam dafa gàtt wallahi parce que ñi ngay jox exemple France ñoom dañoo fekk carte de séjour France parce que képp kuy waxal yàlla xam nga ne lu étranger yu bëri Sénégal du yoon képp kuy waxal yàlla xam nga ne sénégalais yi dañoo dem ba ñàkk seen payoor ñàkk seen wërsëg ñàkk seen lépp nag étranger yi suñu doom yi di dem ci géej bi yëpp nii ay étranger ñoo ñëw maanaam jël li ñu doon suturloo jël ko ba nga xam dañoo obligé guerre dëkk bi dem te loolu xeexuñ ko contre étranger yi mais état lañ koy xeexal étranger yi ay argument lañu ay exemple lañ kese maanaam ci wax bi mais ki ñuy xeexal dëgg mooy état tant que defuñu carte de séjour sénégalais bi du Sénégal tant que defuñu carte de séjour dund bi day yomb tant que defuñu carte de séjour état bi lu mu mënti lu mu mënti ci askan bi du école ngi en tant que sénégalais da ngay obligé dem yóbbu école privée parce que maanaam suñu école yëpp ay doomu étranger ñoo si nekk suñu hôpital yi soo demee dañ transformer en usine de fabrique d'étrangers. ay étranger ñooy jël frontière bi dugg rien que pour ñëw wasin si te duñ sax fanaan da ngay gis ko wasin 12 heures 15 heures génn na dem ñibbi parce que nayee naa fay hôpital bi xaalis te looloo fi am taux de mortalité infantile bi am ni yëpp doomu étranger ñoo koy indi parce que dañoo nayee ñàkk seeni doom médecins yi mën nañ ko duñ ko weddi kàddu yooyu yëpp nag di fës ci njeexitalu lii di kon campagne bi askan wi am nañ ci seen baat ndax nag ñu ngi doon déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy woy politique yi ci seen campagne ñenn ñi déglu nañu bu baax te xam nañu bu baax fan la ñu war a mën a kon féete ak ku ñu war a sànnil seen xob ndax nag lu ni mel dafa am solo loolu ci ñu daal leen nag teewal ci pencum ndaw réew mi ñeneen ñi nag moom ñu nee nañu liñ ci gën a jàpp moom mooy kàdduy fitna yi nga xam te ni fës na ci les campagnes ñu teewlu leen ak euh, Djibril ñaan ànd ak euh, ndaxte euh, jéy rapport fukki fan ak juróom-ñett yi la dugg ci afantek askan wi jébbal leen seen ko programme askan wi nag tàmbale bu baax a baax di saytu yooyu la programme ngir kon mën a tabb ñi nga xamee ni ñoom ñoo leen teewal ca pencum ndaw réew ma li mu si gën a moo nag fu mu dem rek expliqué na fa lu leer loo xam ne ni moom la bëggal gox boobu noonu li ëpp ci yooyu la candidat dafa mel ne kon dañuy jaawale élection yu législative yi ak yu présidentielle bu nu sukkandikoo ci ñi nu deseel. candidat yi dafa jaase parce que député député yow yaa ngi assemblée pour élire pour voter les lois donc mais ñoom tey ñu ne si je gagne war a def alors alors yow yow lu président yow yaa ngi dem assemblée pour voter les lois. mais gars yi jaxase yëpp capital moom mi ay atam toll ci ci 30 ans mi ngi ñaawlu bu baax a baax yenn ci kon ci ay euh, discours yoo xam ni euh, candidat yi ña ngi koy yëkkati te di leen woo kon ñu ñaax askan wi ci ak jàmm. di ñaawlu tamit incident yi nga xam ne jot na am ay attaques affaire yooyu noonu ñu koy ñaawlu mënoon na bañ a mënoon na bañ am mais alhamdulilah ba ku nekk revenir na. à de meilleurs sentiments. ñaari fan dong dese leen kon ci yi lay campagne électorale ngir kon sénégalais yi dem tabb kon ki leen doy ca pencum ndaw réew ma loolet nag tax ñuy woote nit ñi ñu daal di dem woote ji ci ak jàmm ak dal. jërëjëf Djibril ñaan nañu wax ci leneen lu soxal xibaar yi ci bés bi ñu jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo amee jabat eh, ci àddina wërngal këpp fii ci Sénégal nag ñoomal boobu lépp xew-xew eh, journée boobee nag dafa daal di dajale ñëpp ñi nga xam ne nii ay acteurs lañ ci wàllu waaye tamit association bi nga xam ne moom mooy jàppale ñi feebar ñi am feebaru kon jabet la ñu bëgg moom mooy ñu gën leen a jàppale ci wàllum prise en charge yi ndax nag ay jafe-jafe la ñuy dundee bés bu yàlla sàkk ci li eh, ñuy dundee ak li ñuy kon lekkee Mame Awa la mu ngi woon foofu. mes ji fukki fan ak juróom ñeent ci weerum novembre doon na ab bés bu am solo ci ñi nga xamante ni si ñoo yoree jàngoroy jabet ci ñoo nee sax ñoom ñooñee dal dina ñuy profito ci bile occasion dal di cay wax pour li nga xamante ni si ñu ngi koy dund ak feebar bile. ñun fii Sénégal ñaari defi lañu am bi ci njëkk mooy jot ci soins yi. beneen bi mooy prise en charge bi loolu nag défi yu mag a mag la yoo xam ne dañ kaa war a euh, relever yeneen yi tamit mooy naka la ñuy fajee ak taxawoo ñi nga xam ne amee nañ bile jàngaro ki nga xamante ni si moo fa teewaloon jëwliñ ji nga xamante ni si moom lañ dénk wàllum wérgu yaram bi nag moom ma ngay wax li précaution yi nga xamante ni si kii yore wàllum wérgu yaram gi nag moom daal dina koy jër ngir mën a daal di xeexa bile doomu jàngoro. la santé bi ma yabalee dafa

donc c'est l'occasion de nous rappeler. gannaaw ba nga xamante ni si créé nañ ko ci atum 1991 bés bi nga xamante ni si moom lañu ñu jagleel diabète di ko màggal ci àdduna wërngër këpp nag moom ñu ngi koy dal def fukki fan ak ñent ci weerum novembre ci at bu nekk. fii ci Sénégal nag moom association bi dimbali ñi nga xamante ni si ñoo yore boobule doomu jangoro nag moom ña ngay dal di wëyal seenub xeex ngir mën a relever li nga xamante si mooy défi sanitaire yi le Mama Awa Sall ba tey ñu des ci wàllum wérgu yaram wax nag ci euh, li nga xam ne nii moom mooy ab euh, hôpital bu ñu soxla fële ca Mbour euh, jóge nag ci conseil départemental ba nga xam ne nag li mu gën a bëgg moom mooy ñu fexe ba jox leen hôpital bu rëy a ndax nag Mbour aajowoon nañu ko lool te nag doon na loo xamante ni bébét mu yàgg la te it yàgg nañu ko daal di kon jàmbat li mu bëgg nag mooy ñii di kon suñu ay njiit taxawal ci nu mu gën a gaawee hôpital boobu ndax askan wi mën a gën a am wala sax askan wi. yi euh, mën a gën a am bërëb bu ñu mën a fajoo te duñ ci am ay kon jafe-jafe Saliou Samb lay wuyoo ay kàddoom dénk na ko Astou Sow ak bi Biteye mooy dafa am doomam boo xam ne moo nekk ku ñu naan le président de la République du Sénégal muy son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñun nag moom la ñuy oo di ko ñaan mu jàppale département de Mbour ba ñu mën a am un hôpital de niveau 3 nek lo xamné c'est une demande sociale mbour dafa dépasser un hôpital bi est am ni moy niveau 1 bi hôpital bi hôpital bi euh, tout le département euh, de Mbour, pépi de 1 million 500 000 personnes, l'hôpital hôpital Mbour, bien Donc il faut que Tamit, il y euh, a un département qui a un hôpital de niveau 3, l'autre Mbour a un hôpital de niveau 3. Il y a une place, il y a un hectare, il y a un

yoo xam ne nekkuñu ay doomu ay doomu mbuur ñoo xam ne ñoon romb di dem ay Kaolack ak pëpp fii lay accident yi di ñëw te je peux vous dire que man en tant que bi man xam naa lu personel bi di rek ñu wax ci éliminatoire euh, vingt cinq Sénégal nag mu mujj na jël lii di première place bi nekk nag match boo xamante ni match bu xawoon a xat loolu la Sénégal mujj nag daal di euh, gagné boobu lépp euh, kon match ci groupe L bi seenub daje ak kon Burkina Faso ni ki démb ci ngoon la nekk cinquième ak avant dernière journée bu boobu lépp kon éliminatoire Sénégal nag benn bal ci dara boobu nga xamante ni moom la kon am ki ko dugal di abib jara entraîneur ba nag bi parei semat si match bi yëkkati na ay kàddu ñu teewlu ko ak Mansour Diassé. Je tenais à féliciter euh, mes joueurs, l'équipe euh, ñuy sant yàlla bu baax baax ci ndam nga am nañ ko ci match bi di sant supporters sénégalais yi nga xam ne nañ euh, ci match bi ak ñi nga xam ne ñooy maliens yi ñoo nañ supporter si jàpp ba yàlla may ñu ndam bi xam ngeen ne match bi ñu football seen lañ ko footballé xam ngeen man Mali fii laa cosaanoo ndax sama maam eh, cosa fii la cosaanoo donc ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci match bi bu ñu am ndam lu jëm ci match bi si boppam nag eh, am na ñu doon wax ne final la ñun nag jàpp wuñ ko woon final waaye daal eh, match bu méttee la ndax xam ngeen ne Burkina Faso équipe bu mag la mais yàlla def na daal ñu am ci ndam mais match bu jafe la woon Euh, xale yi xeex nañ ba yàlla may ñu ci ndam kii di Habib Diarra nag euh, xam ngeen ne jour bu am solo la jour la boo xam ne nag ku polyvalent la ni koy ni koy utiliser nag euh, sans dépense yi ñi nga xam ne moom la ñuy dajil ci adversaire bi wala ci système bi nga xam ne moom la ñu bëgg a football mais daal li ma mën a waxtaan mooy Habib jara jour la boo xam ne kenn naataat la talent bi nga xam ne am na ko moo tax na daal joueur la boo xam ne joueur bu important la comme ñi ñeneen joueurs yi amee taxawaay ci li nga xamante ne mooy tañeer Donc voilà, tout dépendra aussi de l'équipe qu'on aura en face, qu'est-ce qu'on veut mettre en place aussi, comme on dit, hein, dans notre, dans notre équipe.